juróom fukk ak ñeent yonent yàlla yunus asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub yi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir tegtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gëstu woon nanu ci nettalib yonent yàlla Ilias Ilias yonent bu mag la woon ndaxte kàttanu xelum yàlla solu na ko woon jàngoon nanu ni mu ñaane yàlla ngir mu bañ a taw ndox lal suuf diirub ñetti at ak wàll gisoon nanu it ni Ilias jànkoonte woon ak yonenti baal yu dul dëgg ya ba weer seen diine ju dul dëgg ci kanamu bani Israël yépp noonu la yonent yàlla Ilias delloose xolu niti Israël yu bare ci yàlla seen boroom tey nag danu bëgg a jëm kanam ba déglu nettalib beneen yonent bu toppoon ci jamonoy Ilias dinanu gis ni yàlla tànne woon benn waayu israel bu tudd yunus sant ko mu waare ji ci ay doxandéem yu nekkoon nooni israel nu ngi jàng ci téereb yunus ci saar wu jëkk wi mbind mi nee na kàddug aji sax ji wàccoon na ci yunus doomu amitaay ci baat yi jogal te dem niniw dëkk bu mag ba te nga yuuxu ci kawam ndaxte coxaram agsi na ba fi man ndax dégg ngeen li yàlla santoon yunus yàlla wax na ko ne mu dem artu waa dëkku niniw ñu tub seeni bàkkaar fekk niniw googu di péeyug réewum asiri te waa asiri sax ñoo doon xeet wu soxor wa bëggoon a far bànni israel lu tax yàlla bëggoon a yónni yunus ci doxandeem yooyu xeep te bañ bànni israel ndax yàlla toppatoo woon na nooni israel itam waaw yàlla dogaloon na àtte waa niniw ndax seen bàkkaar egg na ba ci asamaan sax waaye yàlla amuloon benn baneex ci nasaxal bàkkaarkat yi yàlla bëgg mooy ñépp tuub seeni bàkkaar te mucc loolu moo taxoon yàlla woo yunus sant ko mu dem ca waa niniw artu leen ngir ñu tuub seeni bàkkaar te bañ a sànku waaye yunus bëggul woon a artu ji ay noonam yunus bëggul woon a nekk yonent ci dëkku niniw yàlla dafa bëggoon waa niniw réccu ngir mu mën leen a yërëm waaye yunus moom dafa bëggoon yàlla mbugal leen looloo taxoon yunus bañ ak yonentam di fexe daw fu sore aji sax ji waaye fan la mënoon a daw ba sore jataayu aji sax ji nanu jëm kanam léegi ci nettali bi mbind mi nee na noonu yunus di jóg daw ngir làqu ji fu sore aji sax ji mu àgg yafo te fekk fa gaal gu jëm tarsis maanaam fu sore lool ni niw mu fay paasam ànd ak ña ca gaal ga jëm tarsis fu sore aji sax ji waaye aji sax ji wol ci géej gi ngelaw lu metti te ngëlën du rëy am ci géej gi gaal ga di waaja suux ña doon liggéey ca gaal ga tiit di ñaan seeni yàlla te ñu sànni ci géej gi yëf ya nekkoon ca gaal ga ndax mu gën a woyef yunus moom wàccoon na ca taatu gaal ga tëdd fa di nelaw nelaw yu xóot ka doon dawal gaal ga ñëw ci moom ne ko lu tax ngay nelaw jógal ñaan ndimbal sa yàlla xëy na mu yërëm nu te nu sànku ñuy wax ci seen biir naan kaay leen nu tegoo bant ngir xam kan moo wàccee ci sunu kaw musiba mi ñu daldi tegoo bant te mu dal ci kaw yunus noonu ñu ne ko wax nu kan moo indi musiba mi ci sunu kaw lan mooy sa liggéey fan nga jóge ak man réew nga bokk te ci wan xeet nga askano mu tontu leen ne man yawut laa te dama ragal aji sax ji yàllay asamaan moom mi sàkk géej ak suuf nit ñooñu daldi am njàqare ju rëy ne ko lu tax nga def lii ndaxte nit ñi xamoon nañu ne dafa doon daw fu sore aji sax ji ndaxte moo leen ko wax ñu ne ko nan lanu lay def ngir géej gi dal ndaxte géej gaa ngi doon gën a mer mu tontu leen ne yëkkati leen ma sànni ma ci biir géej gi te géej gi dina dal ndax xam naa ne man maa xëcc ngëleen li ci yéen nit ña di joow ngir jot tefes ga waaye mënuñu ko ndaxte géej gaa ngi doon gën a mer ci seen kaw noonu ñu ñaan aji sax ji naan ey aji sax ji bul nu sànk ndax bakkanu nit ki te bul nu sëf deretam ndax yow aji sax ji lu la neex ngay def noonu ñu jël yunus sànni ko ca géej ga te merum géej gi daldi dal ragal yàlla gu rëy jàpp nit ñooñu te ñu def ay sarax ngir aji sax ji te def itam ay yéene noonu aji sax ji yebal jën wu rëy mu wann yunus diirub ñetti bëccëg ak ñetti guddi yunus nekkoon na ko ci biir jën woowu nanu taxaw fii tuuti fi nu toll léegi gis nanu ni yàlla toppe woon yunus yonantam bi doon daw yunus mënoon na daw waaye mënul woon a rëcc loxob yàlla lu taxoon yàlla toppe noonu yunus ndaxte yàlla dafa ko bëgg te bëgg it mu def coobareem noonu gis nanu ni yàlla yabale woon jën wu rëy ngir mu wann ko waaye reyu ko lan la yunus mënoon a def ba musal boppam nag daara daara lu yuuxu ci yàlla aji sax ji yàlla rekk a ko mënoon musal naka noonu ci saar ñaar mbind mi day nettali ni yunus ñaane woon aji sax ji ci biiru jën wa tub ci li mu bañ a déggal yàlla diirub ñetti fan yàlla doon na aar yunus ci biir rabu géej woowa ba mu ràññee bu baax ne déggal yàlla moo gën daw yàlla amunu jotu jàng lépp li yunus waxoon yàlla ci biiru jën wa waaye war ngeen xam li mu mujjoon a wax ndaxte lu am maana lool ci ñetteelu fan ba yunus ne mucc gi ci yàlla lay jóge naka noonu bi yunus waxee mucc gi ci yàlla lay jóge mbind mi nee na aji sax ji wax ak jën wa mu goqi yunus ca kaw suuf sa kon ci saar ñett mbind mi dafay wax ne ñaareel bi yoon aji sax ji joxaat yunus ndigal lii jógal te dem niniw dëkk bu mag ba te nga yëgle fa xibaar bu baax bi ma lay jox bile yoon yunus dégg na ndigalu aji sax ji te mu daldi tegu ci yoonu niniw dëkk bu doy waar te rëy la woon ñetti fan la nit waroon a dox ngir jàll ko noonu yunus di dox bésub lëmm di yëgle naan fileek ñeent fukki fan ni réew dina nasax noonu waa dëkk ba daldi gëm kàddug yàlla ñu fas yéene woor te ku nekk la ko tàmbalee ca borom àll ba ci ki gën a walaakaana ku nekk muuroo saaku xëppoo doom buuru niniw dégg mbir ma daldi wàcc jalam summi mbubbum buuram sangoo saaku toog ci doom te mu wax ñu siiwal ci niniw gépp ndigal lii na nit ñépp yuuxu ñaan yàlla ak seen doole jëpp na ku nekk dëddu yoon wu bon wi mu topp ak jëfit tifaar yi mu def kon xëy na yàlla dina bàyyi meram mu tarmit baal nu ngir nu bañ a sànku naka noonu yàlla daldi gis ni waa niniw jëfe mu xam ne rëccu nañu seeni jëf yu bon yàlla daldi bàyyi li mu naroon a def te nasaxalu leen ni mu ko fase woon yéene kon gis nanu ni yàlla yërëme waa niniw ndaxte gëm nañu kàddu gi mu leen yónnee ba tub seeni bàkkaar ak xol yu toj te mokk waaye yunus moom bégul woon ci li yàlla yërëm waa niniw yi déglu leen li mu bind ci saar wu mujj wa mbind mi ne yunus daldi mer lool ndax loolu mu ñaan aji sax ji ne ko ey aji sax ji du lii la doon wax ba ma nekkee ci sama réew te moytu lii moo taxoon ma daw jëm tarsis ndax xamoon naa ne yow yàlla ju bare yiw ak yërmande nga di ku yéex a mer te fees ak mbëggeel te di bal ñi ngay tëkku léegi nag aji sax ji faatal sama bakkan ndax dee moo ma gënal dund sax aji sax ji tontu ko ne ndax jaadu na ngay mer noonu yunus daldi génn dem toog ca penkub dëkk ba mu defar fa mbaar dugg ca biir toog di xaar ba xam luy xew ca dëkk ba aji sax ji daldi saxal genn xëy màgg gu tiim yunus te ker ga di féexal boppam ngir dalal meram te yunus am mbég mu rëy ndax xëy màgg gi wante ca ëllëg sa ba bët sete yàlla yebal aw sax mu lekk xëy màgg gi ba mu wow te bi jant bi fenkee yàlla daldi indi ngelawu penku lu tàng te jant bi di lak bopp yunus bi muy waaj a xëm yunus di ñaan dee naan dee mooma gënal dund yàlla laaj yunus ne ko ndax jaadu ngay mer ndax xëy màgg gi mu tontu ko ne waaw waaw maa yey mer ba bëgg dee sax noonu aji sax ji ne ko yaa ngi yërëm xëy màgg gi nga xam ne sonnuloo ci te jëmbatuloo ko dafa sax ci génn guddi te dee ca ga ca topp man nag nga bañ ma yërëm niniw dëkk bu mag bi nga xam ne lu ëpp téeméer ak ñaar fukki junni nit ñu ràññewul lu baax ak lu bon a nga fa dëkk ma nag coogali bàyyi ma ya fa nekk foofu la téereb yunus yem mbokki déglukat yi ci nettalib yonent yàlla yunus am na lu bari li nu ci mën a gis ci mbirum jikkoy nit ak jikko yàlla li nu ci mën a xam mooy lii yàlla du gënale yunus gënale woon na lool sax waaye yàlla gënalewul ci lu wóor xolu yàlla wuute woon na lool ak xolu yunus xolu yunus dafa feesoon ak gënale waaye xolu yàlla fees ak mbëggeel ak yërmande ci nit ñépp yunus bëggoon na ay mbokkam te sib ay bañaaleem waaye yàlla moom bëgg na waa israel ak waa nineef ak xeeti àddina sépp yunus dafa bëggoon waa niniw sànku ndaxte ay nooni israel lañu woon waaye li yàlla bëggoon mooy ñu tub seeni bàkkaar nangu kàddoom te mucc yàlla du gënale koo mën a doon ak noo mën a mel yàlla sopp na la dafa sopp waa àddina sépp yàlla dafa bëgg nit ñépp ci xeet yépp nangu seen bàkkaar ci kanamam xam dëgg gi gëm ko te mucc waaw am na ñooy xalaat ne yàlla dafa tànn ñenn ci nit ñi ngir ñu sànku ca safara te tànn itam ñeneen ngir ñuy bànneexu ca àjjana waaye ñiy xalaat loolu ñu ngi xalaat lu dul dëgg ci mbirum yàlla mi jub te baax ndaxte mbir mu sell mi nee na yàlla sunu musalkat dafa bëgg ñépp mucc te xam dëgg gi yàlla bëggul kenn alku waaye ñépp tuub seeni bàkkaar wante ñi bañ a tuub seeni bàkkaar yàlla dina leen àtte ndaxte ubbi lu ñu seeni xol dëgg gi leen mënoon a musal noonu yàlla dina mbugal ñépp ñi gëmul woon dëgg gi te doon bànneexu ci njubadi moom la kàddug yàlla aji sax ji di yëgle kon bu leen ci dara nax yàlla du gënale mukk te amul benn bànneex ci nasaxal bàkkaarkat yi yàlla bëgg mooy nga xam dëgg gi gëm ko te mucc looloo tax yàlla ci jamono ya weesu ya tànnoon na ay nit di ay yonent xiir leen ñu bind kàdduk yàlla ngir nga mën a xam yoonu mucc wi yàlla tëral nangu ko te mucc képp ku ko gëm dina taxe képp ku ko sàggane dina sànku yàlla du gënale fii nag lañuy yem tey di tasewaat ak yenn émission bi ñëw ndegam neex na yàlla ngir jàng ci mbirum yonent bu mag bu yëgle woon lu bare bare ci lu jëm ci ramukat bi waroon a ñëw ci àddina ngir musal bàkkaarkat yi yonent boobu mooy esayi yonent yàlla bi jiitoo almasi bi lu toll ci juróom ñaari téeméeri at jërë ngeen jëf ci déglu bi sunu adresse moo yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku li nu jàng ci mbind mu sell mi tey mucc gi ci yàlla la jóge yàlla du gënale dafa bëgg ñépp mucc waaye su ngeen tuubul seeni bàkkaar di ngeen sànku yéen ñépp thank you